waaw bu si yàlla àndee bu loolu génnee di nga gis ne dinañ gën a mun a euh, avancer si côté boobu noonu ko mais côté promotion est-ce que animateur yi ñu ngi leen di teg est-ce que fan ngeen est-ce que fan ngeen di jaar ba jaay seen musique comme à part YouTube bi ngeen di génnee clip est-ce que di ngeen yóbbu seen produit fenn si télé yi wala si kii ñu leen di jàppale côté boobu. waaw de temps en temps am nañu ay émissions yu ñu fi jot a def par exemple fii nii à Dakar à Ziguinchor aussi si ok waaw fii euh, ñu ngi góorgóorlu daal si côté promotion bi yombul. Mhm. waaw mais ñu ngi si kawam parce que sans promotion nit ñi mënuñu la xam. donc euh, lii nii c' est très nécessaire pour un artiste nga ñëw si ay plateau. si ay télévision si ay mhm. rajo mais côté boobu aussi ñu ngi góorgóorlu ndànk-ndànk. Mm-hmm. est-ce que xalaat ngeen def duo ak artiste bu nekk foofu bu mag xam am naa artiste yu bëri yu mag yoo xam ne euh, nekk nañ foofu mais fii dañuy dëkk dañ basé wu est-ce que yaakaar ngeen def euh, duo ak ñooñu. si si si si am na ay mm-hmm. yu nga xamante ne vraiment mu ngi rafetlu seen i liggéey di leen bàyyi xel. waaw te incha allah bëgg nañ def duo ak ñoom incha mm-hmm. allah. incha allah alors euh, lan ngay tàggatoo seen projet lan ngeen xalaat a def. waaw lu bëree bëree bëree. Mhm. Euh, décembre bi est-ce am ngeen programme wala bokk. waaw y' a yéen a ngi yéen préparé si si y' pas mal de programme yu nga xamante ne invité nañ ñu. Mhm. en Casamance comme ici à Dakar. Mhm. waaw par exemple euh, mooy le grand rendez de la Casamance bi war a am au Sucès le janvier. ku jamaat incha allahu mu ngi si biir mhm. ak yeneen programme yu war a xew en Casamance waaw programme benn jeune artiste bu nekk en Casamance tamit euh, bu tudd Kabi euh, bu war a am euh, le 27 décembre au stade Aline Sitoé Diatta. Mhm. incha allah ku jamaat aussi mu ngi si biir ak yeneen yeneen i programme d'accord ah. Mhm. Ah. politiciens yi nag foofu noonu gis nañu tendance bi locale yi mi ngi ñëw mhm. artistes yi dañ leen di soxla ci genre yooyu noonu yéen ban kaa ngeen nekk yéen wala woowaguñ leen euh, ñun moom pour dire vraiment euh, fasuñu si benn camp quoi ñun ñëpp lañ fi nekkal comme ni mu la ko waxee yeete donc xam nga kuy yeete doo taal daa am koy yee. Mhm. waaw donc voilà. ñun leader yëpp daal. waaw ñun ñun vous êtes apolitique képp ku bëgg avancement dëkk bi rek ñun yow la ñu daal mais kan ngeen gis kan ngeen gis instant bi. Euh, nii nii nii bon euh, la ko waxee rek ñun moom hmm. vraiment. ah fa dëkk de <laughs> yéen fa dëkk de. kan ngeen gis nga xam ne mën na mën na leen jàppale ci li ngeen bëgg ci surtout artistes yi aussi. waaw ah, bon ñun bon comme comme ni mu la ko waxee comme gis ñu kenn ku ñëw envers ñu jàppale ñu donc dama ne kii la gis moo moo ñu war a mun a jàppale mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais nag jàppale moom euh, vraiment soxla nañ ko te du ñu mm-hmm. kese ñoo ko soxla artistes yëpp ñoo ko soxla donc képp ku ñëw pour jàppale ñu rek waaw ñu koy souhaiter la bienvenue est-ce que doo ñu may dara tamit tàggatoo ko euh, noo bëgg ma may la. Ah, choisir rek kii euh, code carte postale wala code postale carte postale bi laa bëgg ah. waaw. Casamance yoo yaa cuk bee cuk fanu jóg wanu mus su jóg léegi yow da nga may may Casamance yoo. Eh, sama baat neexul wuy bul yàq affaire bul yàq bul yàq yow demal rek. <laughs> jakum pukka num baaɓe koyloboli massa zone rouge kaka nomi yoyi jeeni keti mansa jooluju kesukom panomi rooli kumansa uno kenlo jaa kep pano jog ube kellaw kummanga tep uli baaɓe bajutellaw rifumeng tep mante fari fullaw waaw ISIS la may la jabar may la kër ah, loolu yëpp na fa. Ah, may la jabar may la kër. waaw ce que du ma ñëw lu ñu mës a xam mooy teranga. waaw foo munti jógee boo yegsee ñu teral la. Mhm. waaw uliko bu ñaayee yow ah welcome to Casa bienvenue en Casamance. ah macha allah kon dinaa ñëw dinaa ñëw andi équipe bi yëpp ñu ñëw Casamance daal. waaw allah merci beaucoup kontaan nañ ci dalal la. xam naa mm. dinañ suivre projet yi incha allah. incha allah lu ñu ci mën a jàpp rek ñu def ko incha allah. merci beaucoup merci merci.